waaye jël leen distance. da ngeen a xaw a. jël leen distance. waaw waaw day demee nii. avancé avancé avancé. అలాగే ఎందుకని మేము మై బాయ్స్ మురికి మై moom la ñu bàyyi. bul forcer bàyyi leen nii nag. Thank you. Ele quer sofrer na patrulha. per du moment. Anda, vamos tudo aí. Tá. Mariana, mulher, Ah, isso. Para para seguir o problema. Ah, Então, falando. Allez, avancez, s'il vous plaît, le gars, le gars. Hold on, hold on. dëgg la. go koo Take dëgg taxawaayu communication bi média yi. Uh-huh. ñëpp. Uh-huh. rafet na. Uh-huh. mat na. ndax nag média li muy wut mooy am lu mu wane. lu gën a rafet li uh, dara. lu gën a neex li lenn gënu koo neex. kon nag. mais monsieur le ministre ban ban yëg-yëg ngay am doo ak say man bu ma yegsee Touba dama naan damaa yéex a dama nekkoon ci mission boo xamee ne que yoon réew mi la ñu dem nekkoon ci. waaye bu ma ñëwee Touba rek. lu ma teel a teel a teel a ñëw dafay mel ni damaa yéexal parce que Serigne Touba ci wàllu boppam leneen amul ci kanamam mhm. dul nga ñëw rek nekk ci dëkk bu sedd tedd tedd bii wax fi li wax ñaan fi ñaan mhm. te mu wóor la ne waaye saa yu ñëwee fii rek

non non taxalee lu kon ñëwee ngeen di jaarale seen. loolu foofu amul. non non loolu si yoon bu engrais bi dañuy wër ci ginnaaw la dañuy yokk fa. damay damay fi am nañ la léegi. Like, man, don't I'm Sorry. sëriñ bi la. waaw je pense. moom moom la allahu akbar. kii sëriñ Mountakha. ah kii sëriñ Mountakha. kii sëriñ Mountakha. v a e Qua u n g quá n u y a s s a u r i Ousmane bu leen ñu bàyyi kilifa yi ñu egsi toog. ubbi leen ubbi leen ubbi leen ubbi leen. da ngay da ngay da ngay ubbi leen complètement. waaw ubbi chef si chef bi. demal nii demal nii. ñu may sëriñ bi mi ngi dugg si. ñu may sëriñ bi mi ngi dugg si. c'est bon. ndax yéen fi yegg tëjee. ndax yéen fi yegg tëjee. ñu may yoon wi ñu may yoon wi. dañuy kaay leen sant leen Serigne Touba borom woote boo xam ne nag dafa am njëriñ ku mën a wuy dina wuy ndax kaay leen sant yàlla mooy kaay leen mu njëriñ te ku sant sa bopp nga ko defal wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi te yàlla soo ko sante xam na alaysa allahu bi a'lamu bi shakirin sosoo da ngaa sof da ngaa yokk dangaa wax ne ñun ñëpp ay bokk lañu waaye dañu gën a bokkoo dangaa wax ne ñun ñëpp kalimatu tawhid moo la fi waaye tawhidul kalima sëriñ bi état bi xelam war na dal ci yow baax baax baax ndax kilifa bu mel ni yow jiite mbooloo mi nga jiite dañuy xam ne jàmm rek lay raas ndax jaboot jàmmay boppam moo tax foo toll yaa ngi santaane na bu ngeen gisee wax lu yàq wala mu def ko lu yàq na ngeen ko sori. bu ne ko ñooñu ko ñooñu ko. waa ji kii yoo di ñaayoo. am réew day am kilifa xam ne su ne waaw ñëpp ne waaw waaw bu ne léegi ñëpp ñu déedéet waaye réew moo xam ne kenn ku ne sa kilifa bopp nga day tas. moo tax léegi yu wër ak ci monde islamique bi am ñooñu. ありがとうございます。 Cheikh Bekay yi ànd na ak mbooloo waa Gambie alqaadi Mouhamed Lamine Kane ànd na ak mbooloo Niger Cheikh Omar Diko ànd na ak mbooloo ak Cheikh Siradio Aboubacar waa Mauritanie moom chef d'état ba dafa wax ne bis bi bisu Mauritanie la tax ndaw spécial mu ñëw ci yow ziyaara la ndokkeel la ndax nee na gànnaar mooy Tuubaa Tuubaa mooy gànnaar ndax xam nañ li gën a sëñ Tuubaa ak صاحبي راسه صار صاحبي منصور تلميذ غنية نحكي باسمي بروفيسور ليغري كل كلام عليه عمره باسمي الشيخ محمد أدفع أعمر العفوي يوني على الشيخ تراب ابن عباس نيونو مورو مبالي كوتا تندخ جمهورتنا نيونو الشاذلي تيروسو نيونو الشيخ أحمد ولفتن زاويام نيونو الشيخ سيد المختار كنتي نيوم مورو أستاذ محمد سالم العقوبي أنا نمورو سيد أحمد ولد الوالي أنا نمورو الحاج يوم أنا نمورو Ah, ndax délégation miin am nañu mbooloo. Cheikh Babou Khane am nañu mbooloo. ku jigéen la ñu nekk kenn dégg may PDS ñoom maître Madické mi moo toog saret boo ko gis gis ndax jàlle la jàpp fàtte ñu ko dara bëri PDS ñoom ñu AFP yëpp ndaxte leer nañu suñu bopp ñun ñëpp Serigne Touba moom lépp la maa ngi fàttali ne rek moom dafa waxoon yàlla wax ko yàlla may ko ko def ne ko defal ñu suñu dellu ci réew mi naka tëgg ñeel ñëpp loolu nag jotaayu tey bi firnde na loolu ndaxte ñëpp wis nañu. الأحبة أجمعين أصحاب السماحة العلماء والمشايخ ممثل القيادات الروحية في البلاد أصحاب السيادة ممثل الحكومة السنغالية وزير الداخلية والوفد المرافق له أصحاب السعادة العيني قبل الرأي والشيء ci ndigalal kilifa Serigne Touba Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne moo fi toog jataayu Cheikh Khadim yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gër la ñuy dikkee leen jotale kàddu yu bàyyi ko ci moom kon ni ko jëwriñu ñëw jëwriñu bi tedd ji wax di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu Cheikh Mouhamadou Bachir nga xam ne mboolem lu ci motoon wax wax na ko lépp mboolem lu du soññi ak i digle ak i tere wax na lépp kon nag li ñu ci dolli ci xajar yi nga xam ne dangeen ko xaar ëllëg ak soxla ci dem na nama leen mën a andil ëllëg zahara al-fasad fi al-barri wal-bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'da allazii 'amiluu la'allahum yarji'uun 你看，看，看，见了。 Да. Abi yolla kesin hediyesi mi var? Dah dah. Yani